voilà. détail rek laa jël ko waa fii beeg sàcce beeg yooyu. moom mënuma ko gërëm dama koy bàyyi ak yàlla ma fay ko parce que sama xew ci kaw ci kaw sama xew sonn na ci torop torop torop. billaahi sonn na ci façon sonn bu ne sonn ko ci xew bi li ngeen di gis lépp lépp maa mbaasi jàmm maa mbaasi man dama xaw ma sax la laa ko war a wax man koy xool nii rek xaw ma lu ma ko war a wax. yan ma ko yàlla moo lakk. lan moo waral loolu la léegi ma ne leen nag aw loo ko fay. imagine bu am dese bàyyi lépp comme di ma dooleel parce que xam na ne rakkam laa wax dëgg maanaam balaa nga xam sa dëgg nga xew rek mais kii sama nit la kii aw ma fayam de yàlla ko yàlla fay ci barki Seydina Muhammad sa takk ñëpp a ñëw gis nañ fi Fama Faye gis nañ fi Mame njaay gis nañ fi jaaykatu diw yëpp quand même alors relation boobu lan nga ci wax mais c'est normal parce ñoo bokk milieu yi. mais lampe bi ni ma ko defee. saamaam dem na ndax maa yoral saamaam yow sa ndey ju baax ji biisu yow sa baay alaaji Mecca waaye xam nga noo def danga ni moom mi toog ndeyaam. sama séeréer bi nga xam ne ginnaaw raay la woon ginnaaw raay ak Pikine nga ne ko maay sa ndey maay sa ndey maay sa baay maay sa mag maalikumba joor jegeen faralam faralam ñaari yoon dama ni lu waay bëgg na ko téye ni nga bëggee woon ni nga bëggee na yaa moo tax bis bi jot dama jox la ko yaa am yaa mën sa nit doo yàq sa nit fonk sa naa indi naa la ñu. waaw. xam nga luy sama yëg ko gis ma ñëwee léegi. ci bëccëg la waroon a ñëw bokk ci ñu yóbbu añ. ànd fëri bi yaay maam Baasi. waaye moom xam na ne maa liggéey woon. du jooy yaay. maam Baasi ni boo ànd moom. boo ñàkkee parent wala waajur doo ko jooy. xam nga tax loo ko jot da lay téye ni la sa ndey téye mm-hmm. day mel ni moo la nampal day mel ni soowam nga naan waaye nag ci ndeyam la ko jëlee muy biisu man baasin mi sànq damaa di ko xool ko rek ni ko mag ji loo wax mun ma waxuma dara mm-hmm. waaye damaa bëgg rek ndeyaa mi njëkkee mi karbonal musima maa ngi fii toog mm-hmm. man ko sa saag ma xool li nga yor ma ay million yi bari damay toog di xaar waa kër nam pindu gi sa ban yegsi li tax na doo jaay doo jooy ndey doo jooy baay sa yaay a ko de mhm. waaye daraan dimbali mhm. ndax maaliku ma jur digin farlamb farlamb ñaari yoon nga jël ndeyaa ni ko maay sa yaay maay sa baay maay sa bàjjan maay sa nijaay muy doomi séeréer yaa yor jirim moom mi taxaw ndeyam daa dee dama ni yaa nampal sa doom ak sa doom yi moroom xale yu amul ndey ak baay mhm. ak maam yaa leen yor maam Basine Thiam yow su ma wax ci yow su ma média laajee ah? dama ciy wax dama xam ni nga mën a àndeeg sa nit ànd ak yow soo amul yaay moo lay xostin moo lay jox yére bu jox la ooram da lay teggil natt bi nga xam ne yor na ko yaa ngi may dégg ku gis maam Baasin xam ne daa am naqar maam Baasin Caam daa am naqar ndax maamam waajuram bu jigéen dafa foro ci moom waaye su bàyyee lépp ànd ak ndeyaa day wan ne ndeyaa dama bëgg rinde bi ndax xale amul lu dul takk saanam heure ménage bi mu woote moo tax mu ànd ak ndeyaa ak bëggul bëgg ndeyaa fa mel Mm-hmm. nee na fameem xaaral fameem sànq nee na ma fameem yow ba ñu lee warugar bi nee na kor ba ñu indee warugar bi dañu yóbbu leen ko maam dañu yóbbu leen ko maam Baasin mm-hmm. sama maam dafa dafa sax sama xol nee na maam Liwis da sax ci xolam maamam dafa sax ci xolam mu mm-hmm. ne xam ne maam nakar ku nekk xam na dafa ne ci naqar mu yor ko biir këram yóbbu ko hôpital yor ko ba maamam génn xëy tubaar fakal dem àjjana fameem laa xamul lu ma leen def waaye maam Baasin nee na ndeyaa fameem la xam lu mu leen di def dañoo jël lépp jox nee na jël cër bi yëpp ni ko Mamba. wari garu Ndaya. nee na wari garu Ndaya fii la ko def. maa def. nee na Mamba si nee na moo def muuti. maa def nee na moo def muuti. kon gërëmal ma garu Ndaya. nee na mi ngi gërëm képp kuy séeréer képp ku bokk ak Ndaya ña nekk ginnaaw raay ña nekk baasu ña nekk saalum képp koo xam ne doomu séeréer nga rek di xeetam mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm rawatina ay bàjjanam rawatina néegu ndeyam rawatina néegu baayam rawatina ay xaritam ndax doom dafa sax ci xol yàlla boo am doom di tekki doom di bokk ci yow man Basine xolam dafa tooy ay bàjjene ma ngi nii yaa ngi dégg waaye li ñuy gërëm mbokki ndaay moom Basine moomu laay wax wuy ma maam Basine lampi lampi lampi tàkk na maam Basine laa lay wax wuy ma bàjjen barke yonent bi sama gidoon laa tax dama tëdd ci ma maa ngi nit ma mbaas maa ngi ñëw ma noppi ku ma seen war ma taxawal maa ñu ngi ñëw pare nañ damaa jur doom tudde ko muy sama premier lii añi moo léegi ma yóbbu ko kër Pendo yóbbu ko Pendo ak ay mbokkam li mu defal nda yaa ci ay mbokkam la ko njëkk boo nee diw baax na dañ naan ndax bopp moo ma wàcce raame ma naka sama yoon bendoo tubaarkàlla ma ñëw seen kër bendoo macha allah sa or lan la depuis ma naissance dama mën a takk or or sama yëf la nag xale yi xam nañ ko oh. weela maa mais li nga def ci bisu ndeyaa bi mhm. Ndeya sama xarit la nee naa leen internet boolewuñu mm-hmm. te olof ñaay nee na nit boo xamul ni la def nam la def a tax yëkkati cër bu mag bi jox ma jéem nag dégg naa lu ne maam lu jox ñëwul mais tey la xew any time kañ la xew musul xew jour bi ñor moo nekk tey te tey ngeen gis lépp tey laay toj géew bi tey laa fi def yëpp bandi tey laa koy toujours la nekk waaye anytime kañ ci réew mi nag waxtaan rek wax dëgg ci la da ngeen a mu njëkk xam nga Sénégal lañ la ñu war a bàyyi seen caméra yi jege na ma nag pousse leen tuuti démb nii ngeen def xëcc sama kanam gi ba mu mel ne ay pompiteer pousse leen tuuti nag écran yi na rafet. waaw démb ñaaw naa de lan moo xew ñaaw ma dama rafet. dama rafet kay barke jàpp ku ne xam na ni gis ngeen sama sànca bi dama nekk ci sànca jàpp te tànnibeer bi man kii maa waroon a lombal nag tubaarkàlla ndax démb la ma woo maam Matar Gueye naroon a jël jefeere ma waaye yàlla ma bëgg nag. ndeysaan man ngay topp dëgg la nag waaye noppi dañuy interroger doo noppi waaye ñaar téléphone ñoo may yéen seen téléphone ah, maam maam lan nga nar tey ak aussi yan teraanga nga nar a indil sa jigéen bi Ndaya parce que démb aussi am na seede yu rafet yu mu wax ci yow nee na ngeen du tey yéen ñaar yéen sama xarit Ndaya sama la loolu dafa yàgg tey nag moom la neex ba ku nekk jug rek di bëgg xaritoo ko àndandoo tappaloo waaye bi mu méttee man ak moom la woon boobu awuma dara boobu amul dara 2000 connexion lañ daan dugal fanaanee wax ba bersat ci groupe whatsapp bi séq jàmm séq salaam mu nekk nit ku baax lu ne xew na fi sénégalais di ko jëlee lu nekk mais xam na ni man ak moom samedi la ak dimaas bis doxuti te bu xewlee ne ma maam Ndiaye yow laa magalee cër bi dama koy nangu ba mu neex te wax du am bal du tàq fetal du jóg comme nag man nii la ma yàlla moo ñaale damaa mën bés da ngeen may topp rek ci géew mi rek ma dëbb géew bi rek. mais eh, eh, maam eh, sànq yaa ngi woon naan taw dafa bëri woon dafa bëri woon trop démb bu fekkee waaye nag yéen coow lépp yéen yéen a togg laax bi nëbb kokki coow mépp yéen la bàyyi leen di bind nag loo xam ne du yoon nag wax fa dëgg yàlla journaliste yi waaye man aw ma aw ma aw ma aw ma empêchement mais maam Ndiaye empêché na Ilimane Lam dama fay xaas bu bari ma liggéey ba ngoon guddi ayna bi jeex na ma dem ca ma léegi du ma qui arti xaw ma nuñ koy waxee lan laa ma am léegi international la su ma liggéeyee bëccëg gi guddi gi ñu fay ma xaas du ma fax damay tapati tapati. daf ma ne lu tax ñëwoo. ma ne ko Pendo sànc bi moo ma jàppoon mu ne ma waaye mënoon ngaa ñëw wax wax bu rafet ma ne ko ndayaa woo naa ko mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma moom moom xam na man xam na ndax fee démb ñëpp la ñu xul kii kii ki le woon daa am doole da ngay ñëw mu dóor la paas ngàdd la tëll nga daan. léegi ngàdd mi nga sotti fii ah ngadd bi moom duma ko fi sotti xam nga nii maa nekk ci sànca nag ah mais mais magal bi dafa moom dama koy taral ci digg bi laa koy taralee fii ngeen taxaw magal bi damaa ñor de waaye yéen tamit téléphone yi ma tim bari na nag. ñu bay lan ni yedd bu la pendoo yedd moo tax man nga ñëw. man dama am ku may ragal man may gàncax man dama am ku may ragal pour ne ma ñëwal ma ñëw loolu amul man dama duma emprunté rek duma costoor samay maas añi jiw ma ñaani jiw ma xooñ sama kër laa yor di réeg samay cën man daf may neex ak ma ñëw kenn seefew ma man seule personne ku may seefe ma oto xale bu yor trois oto ku koy seefe yéen wér ngeen du xalaat vidéo ñëwoon Fall caabi ma dañuy jël suñu bagage dañuy def ñëwagul moom la ma ambassé di kii këram waaye caméra yëpp la tiim na tiim na xoolal yàlla baax na waaye bu leen jël nag li Fallou waxal Fallou nga ne Fallou bàyyi mbee sama doom la loo si kàkkabe mais mais borom place bi la kaay fii waaye Ali Ali kaay fii ma mame ñëpp a ngi kër ñoom mame ñëpp a ngi kër ñoom maam baas maam sañ sabi waaw mame jox ko li koy jox mais maam sañ sabi lan la kan moo doon sa géwél tey man man Zal Mbaye sama géwél ku lay jot jotari Zal man Zal Mbaye sama géwél man sama géwél duma ko coof duma ko tuutal géwél lu mu rëy rëy rëy rëy rëy faalewu ma la kii laa bëgg jéeri ngoone maa law be sàmb ku limi ci séngi naat maam faali ku ma naax tëx bay maamam nga bëgg buur sax nag buur bëgg laa ko gën te borom angaalu gerte kenn du ko siif ci maafe tubaarkàlla bëgg nag fu mu jëm yóbbu ma lu mu am may ma ci ku ko woo mu ne wool zaan mbay demul ba ñëw di mën a tili lool dafa leer dégg ngeen ko ci ay wax bu doon naxee mbaay du yàgg nii kaa nii la demee ñu wuy si ndayaa tey ñu rukk rek daal di wuy si ndayaa dañ koo magale mu jëf yëf yi mag rek daal di ñëw jàkkaarloog ndeyaa ñu jàkkaarloo ndax jàkkaarloo balaa neex ñu jàkkaarloo bañ a te jàkkaarloo bi ba ñëwuñu. comme la réew mi toll mais coow ba nga déggee coow li coow li démb nan nga da cee am coow am na ci. maam ñëwul ci anytime bi non non bi li maam wax rek anytime du farata xew mi farataa ngi nii farata bi nag la ñëw nañu xew mi démb en time la dañ doon foo rek ba su ba su jàkkaarloo tey la moo tax rek maam ñëw tey te xam nga maam temps bariwul sax nag looloo tax bu génnee ren balaa génnaat déwén moo tax nag du mën di ñëw bu ñëw tey tey la ñëw safe tey la ñëw. xanaa ni nga defati xam nga damaa miinu def dama conjugué waat ko. ni nga defati tey damaa defati. Ah. xam nga Sénégalais dañ may xaar ci def. te boo mu nee def tubaarkalla loo def rek defit lay doon. xam nga cantaakun da am déggaakun am. Mm-hmm. damaa bokk ci askanu déggaakun bi. lu ma def xale yi apprécier. Mm-hmm. yaram day dégg. Mm-hmm. nee naa la tubaarkalla xeesal bi si réew mi maa koy jaay. sangu ci saabu tubaarkalla ba tax lu ma teg sama yàpp yaram mu déggal ma moo tax ma doon déggaakun luy dil bi. macha allah luy Euh, lan nga koy ñaanal euh, ginnaaw biñ ko mayee borom kër tey. waaw di ko ñaanal rek mooy ñaana ko yàlla gi. su ko ñaan na ko yàlla na ko yàlla dafa gudd fan may ko ci njaboot ju barkeel ndax li mu am nii tey tubaarikàlla ku ne bëgg nga ko ndax ku ne bëgg nga góor gu la noppal tubaarikàlla la ko sama morom hmm. ko ñaan rek digg ginnaaw bi tàng jël ban topp ci kaa bi nii ku ne ko bëgg hmm. langue gii baat yi ku la waxoon ne tubaarikàlla bëgg ko kooku dañ wala yaruwul si ndayam hmm. man bëgg naa ko waaye bu ko yàlla tuddee rek tubaarikàlla tarkal léegi ma sotti naa duggoon naa waaye bii paa xam naa bu jotee rek ndax lamp yi ngeen ma taal nii yéen ñi ne mën ngeen lambal nit non man dàquma kenn da di ka ma bëgganteel xëy na yàlla doxal bi sama diggante man ko ko yàlla sottalee ñu xam ne lépp dëgg la man aw ma ku may xeeb ak ku may sànne ku may bërëndoo ku may yóbbu fële dàquma kenn man nee naa la sama xol bi moo may jiite mm-hmm. néewul borom alal néewul ko am xaalis néewul kenn néewul kii moom moom air plus bi amul dara mm-hmm. man sama xol bi rek moo may jiite ku ma nob nag ba nob la ba nob la ba nob la sar day liggéey gi ndax jër say sans rab sax lu neex yow foo ne jonga ma bu toll ni man may lekk xorom di lekk sukkar nga am na kondam te nga am kondam noonu ba def nii am naa ko ma nag sama biir xol yow ma nag wax taawaay yaakaar naa ne doo doon loo xamante ne tamit peut être dina jaaxal du jaaxal ñenn ñi ndax à chaque fois dañuy dégg polémique bi jaaykati diw nga xamante ne yéen a nekk ci réseaux sociaux jaay diw ak leen du ngeen ay xarit li ngeen di woote wala li ngeen di fësal si nit ñi dëgguwul ci lan ngay tontu ci loolu tey gis nga jamono yi ku woote lu dëggul ci yow boo tëddee tubaarkàlla di nga ko xam ndax tubaarkàlla loo ñàkk gëmant ñàkk ñàkk gëmant heure bi di nga am tubaarkàlla mm-hmm. la la bang maa la biram maa la may sa pen di jox yaay Kunta Kinte mbokkum yaay Zeyna la guerrière séri séri zo maam les clarita jeg bis asena bi tubaarkàlla man tikkaloo ba du ma defaral ma faux billet te kenn tubaarikàlla macha allah ma di ko jaay mbaa ma koy joxe lu ne sama xol bi moo ne sama kanam bu ma amee leen lu may dawal sama diggante ni rank ñi doo ma gis sama ria doo ma gis a kenn mais ndaya c'est la deuxième fois mu koy ñëw programme te bu mu wootee anniversaire maa fi ji tubaarikàlla hmm. maa fi gën nit lu baax loo fi dégg tubaarikàlla maa ko fi waxe hmm. kon sama diggante ak ndaya amul entre diw ak savon ndeyaa ba ma koy xam tubaarkàlla boobu ñoom jamuñu diw la ma la waxoon rek mhm. xale yi ma leen xam boobu jamuñu diw maa doon jamb diw bi mhm. ñu bokk groupe mu yàgg loolu léegi tubaarkàlla dix ans yi wéy na di dem comme mhm. ça bu tax ma songo kenn ndax tubaarkàlla saa yu tuuroo bu fekkee ndox xob te ab xob xob mënut a diggante waaw lan wax sànq ci bàyyam bi nga lañ ko bàyyi le ko li ma gën a yokk tax andi fii seeba lañ ko bàyyile mbokkum yaay Fatou Mbaye nijaayu bébé Faa kooku na mère Yacine yaayam tubaarikàlla mu yàgg def lu baax mm. nee naa la kal tubaarikàlla yàgg a def dafatina mm. mu gën mu riis faaris bi xëy fajar wàcc guddi fàll bi dara guddi jigante digg ndigam mbokk bi yaay maam ant ak réew mi toll mm. kaa bareetul mm-hmm. démb waaw nag bi fi takk ñoom tey moom la ñu togg ci la nit ñi añ tubaarikàlla ba suur na rees ak jàmm ci la nit ñi reer ba suur na rees ak jàmm seeba mu baax bi bokkum yaayu Fatou mbay ki bëgg tikkaloo ba ne ko dootoo jooy baay macha baay nag bu rëy fi andi tubaab kàlla macha allah nag bi muy ñëw juróom benn xale yu góor ko jiital ak juróom benn jigéen xaar ñuy douze personnes dara a gudde hmm. ma ne ko lu tax mu ne ma tubaab kàlla damaa yor sama xaalis ma ne ko xaalis mu tudd mu ne ma banque centrale des états de l' de l' Ouest tubaab mu jox ma def ko sama poste bi ànd sama doom ñi xam ne yàqu dara ajatu benn fa Fatou Mbaye sa yaay war naa mën a ne xaas bu bari tey laa amee ndayaate fi laa ko joxee digg géew bi te bokk na nagu démb nag bi démb daa dugg biir cité bi tubaarkaal cité bi démb kenn nag bi bu ne mu cité bi ne moom xanaa kon mu am nag bi rek mais aw ma jot et eh, aw ma jot anytime jour ba may ba muy def aw moon jot mais mariage bi ma amee jot ni tubaarkaal teew naa dafa loo xamante ne daf fi jaaroon fa yi passé ci polémique bi nga xamante ne doxoon na ci diggante Sara Sow ak Awa Baba Thiam mu am ñu bëri ñoo xamante daf nañ sorti ku ci mel ni yow kenn doo gisee Pawlish Mbaye ñeneen ak ñeneen waaye ku ci wax rek da ngay xaritoog am zozo jàmm santeeg moom ñu bëri ne da ngeen di ragal am zozo wala da ngeen bañ mu xëy sosal leen wax leen lu rëy ci dëkk bi moo tax. am zo bu dee ku ne bëgg a xaritoog moom. am zo ku ko ragalu doo nit. Ah. am zo ma toog ba ca Suisse xuma Sweden. Ah. toog yor yëgam di wax. am zo bu la wax da nga ko ragal yow. dama ko ragal kay ndax duma ko ragal am zo moom bu waxee ku <laughs> man am soo dama ko ragal de. ca waay kaay li may rëy làmmiñ yëpp. Eh. am soo rek laa ragal. Eh? tey sama xar la waaye lu mu jàpp mën na ko bàyyi mu maa ngi dégg dégg naa ñu naan tike sañ wax geeg vulgaire geeg kon xaritu am a nekk eh, yéen may tooñ nag am soo rek laa peur moom rek laa peur. am soo rek laa ragal. man kay fi ne am soo ni hmm. ngi déggal si allahuma sami mu di ma njoot ba dem <laughs> gànna wat waaye laal la sow mi nga wax xaw ma nu mu tudd ak. sana saw dama ne la barki dem nee naa la. xuloo hmm. milliardaire. Hmm. yoonu 500 francs ne wu ci. dëgg ñoo moom seen i milliards seen i milliards. Hmm. seen yére million xolal nañu reyante. man bu ma du ma yor téeméer di ci dugg suñu waa seen loxo jot seen ginnaaw ñu may wutalee avocat may dama ko dikk baal ma toog fii si nitu téeméer yi moo ma gën a milliardaire daal ba ngaa dégg dëgg man jor na. Moussa Guimard Sindou. waaw coow li jeex. coow li jeex waaw kon jeex na kontaan nañ bu baax a baax a baax. mais bu leen fàtte ne seeba. waaw lanu bàyyile. dëgg la andi na nagu rëy wi. Mhm. yéen a joxe information yi léegi.

ci ngay jaay diw bee ngi dox oto nga damay wan sénégalais fi nga wàcce dama mën voilà jaay diw dina wax nag wax dëgg ma nanu bàyyi mu seet yëgg ni damay jaay diw dama ne noonu bàyyi mu seet man na àdduna sépp jaay diw jaaykat diw yéegi ñëpp eh, dawal oto man déggoo li ma la wax déggoo ma wax dama ne na àdduna sépp di jaay diw na àdduna sépp di jaay diw mais diw ku ko jënd te jëndee woo ci law ba yàq nga sa xaalis maa ko wax diw boo ko jëndee te jëndee woo ci maalo bii tu as tombé ton argent. Ah léegi lan la ñuy mën a xaar ci yow fii ci kanam tuuti ci dama fi samay naw ay surprise la. jéggal ah. rek toog ambiance kafre pare dem ñibbi tubaarkàlla et maa la bi ci ambiance sax lay dox mais bul fàtte ne kooku. Ah. woo na ma. jërëjëf waaw kenn day yow. mën ma ci réew mi nag sax du njàmbaar de. mën ma ci réew mi du njàmbaar. mën ma ci réew mi. Eh. mën ma ci réew mi. tubaarikàlla du njàmbaar. jàppale sunu borom rek la. mën ma ci réew mi man tubaarikàlla doo ma may jooy yomb ci réew mi. day fari kaa <laughs> bi lan la. mën ma ci réew mi du njàmbaar ñaanu yàlla la waaye bu dee njàmbaar sax rek maa ngi ak moom. te gelew bi sama mbaala loola koo ragal fii am doole fii gisuma ko fi ragal de waaye ñemewu am doole looloo ma jaaxal waaye ndey ko vraiment ñeme na kuy toog fële ne suñu di wax dama ko bëgg si nag mais sama ko toog ñii la la ko bi do topp ay jàng ay baay ba xale yi at ko yaa neex na kii yow doo ñu may ñu waxtaan waxtaanu famille nag. ok may ñu waxtaan waxtaanu famille. yaay ndayu ndaya yaay baayu ndaya yaay bàjjenu ndaya tubaarikàlla nee naa la njëkk a gaa tox te bari gan kon borom gaan di bari gan gis nga ko bëggul xew ba dem xew ba kenn warul tubaarikàlla boo àggee siis moo toog waa kenn baa boo demee fa ee di kalaw bi ana Ndeya ah. balaa ngeen di ma bàq ma bàq sama bopp. ana Ndeya ci nawloo ah. boppam. ci fonki géeram ci bëgg ay magam tubaarikàlla. eh ci toppatoo Ndeya ba mu ñibbi Daaru Salaam ma wax dëgg. dara laa yónni. ana Baasi. Seeba Njaay. Seeba mu baax bi. mbokk yaayu Fatou Mbaye. baayu Ndeya. tubaarikàlla Ndeya ko xool ba mu nekkoon. dama ne xool ba mu nekkoon ne ko yow laa bàyyi la sama bopp. ma Baasi. ma Baasi Njaam. Seeba Thiel la yónni de. Seeba. wax ji gis nga ko waaw ah, man ma balaa benn tur a am dugg na ma mbaa sa jàmm taxaw laa fekkee sa wax jooju gis nga ko yaa jox ma wax lu mu xamul démb la fi andi na ko téeméeri guddi ah, waaw waaw nag bi ñu togg tey Demba Ndiaye moo ko jot ma ñëw ci def si yàlla l'argent takara pièce pièce qui apporte le bonheur ndax am na lu si réew mi dama saa ñëw ma joxal déglu leen ma leen ma cent pour cent bi day fëri déglu leen ma day fëri yaa ñaari junni ci Samba Ndiaye ñeenti junni ci Samba juróom benn junni ci mbokk mi ay Fatou Mbaye ee fukki junni ci nijaay nga dofa juróom ñetti junni ci nijaay nga dofa fukki junni ci góor ci pelay be waaw waaw la ma wax. Ebe te mo ya malanta, ebe te mo ya malanta. bi côté Bassa